nekkee ci réewum Sénégal ci biir journal bi moom Diouf Sarr nee na deuxième vague bi virus bi moo gën a soxor comme nam ko waxee woon daf koy gën a dëggal waaye nag ñoom ñoo ngi xar seen tànk tubay ngir nag saafara mbir yi yéen gi kaay gii di Vox Populi nee na mbir yi saafaragul ndax lu toll si juróomi fan lu toll si ñaar fukk ak benn daan ñu ñàkk seen bakkan ci woppi coronavirus ci Sénégal yéen gi kaay di la Soleil mu ñu xamal lañu lu jëm ci wàllu màggalu ko Noël gi église bi wax nañu ci lu jëm ci wàllum coronavirus gi daan nañuy wax askanu Sénégal ngir ñu gën a vigilant maanaam bàyyi xel feebar bi tey jël mesure barrières yi waaye nag ñu daal di am yaakaar nañ ci mbir mi dana daal di saafarawo église bi ci noël yi jaajëfal nañ bu baax ñi nga xam ne ñooy médecins yi ci taxawaay bi nga xam ne daal nañu koy amee li am ci yérekaay gii de la Tribune mooy nag guddik noël amul benn feet boo xamante ne am na ci ndakaaru ndax ñi nga xam ne ñooy gendarmerie ak waa police seeni élément ñoo doon jàllaañoo ci biir ndakaaru ruqoo ruq dugg nañu fa waaye nag gox bii di almadi moom dañu ko daal di surveiller comme du lait sur le feu maanaam kenn yënguwu la naam ci biir mi am na ay benn benn yoo xam ne leen di teg loxo yéenekaay gi di 24 heures daan ñu xëy yóbbu ñu diwaanu Saint-Louis foofe nag Mansour Faye mi nga xam ne mooy maire ba am a projet jël avenue Charles de Gaulle tuddee ko Macky Sall ñu baree bari daan nañu koy naqarlo waaye daan nañuy woo Mansour Faye loolee nga xam ne ab mébét la mu daal di koy teg ci suufa mari taw ñaan mi ñu dénkoon njàng mu kawe mi ak song yi nga xam ne song na ko Mansour Faye tax na waa APR jamono ji ñoo ngi koy songo ñenn ñi sax jàpp nañ ne bu ñu ko dàqee du bett kenn yéenekaay gi di Libération Maguette Sène mi nga xam ne moo jiite kudd ñu bari dàq libération yéen kaay nee na màgget seen mi jii di kuddu li mu def tegu ko fenn ndax ñi nga xam ne ñoow doon liggéeyee kuddu te amee CDD maanaam contrat à durée déterminée ñoom ñëpp la ñu faxas daal leen di dàq te moo ne seen contrat ci weeru mars atum 2021 la waroon a jeex kon maanaam màgget seen teguwul ci yoon waaye nag li nga xam ne moo am ci mbir mi màgget moo moomee dafa bëgg a jël ay militant duut duutal leen ci fi nga xam ne maanaam mooy kuddu kon jamono ji bëri na ñoo xam ne kuddu la ñu doon liggéeyee ñoo ngi chômé yéen a kaay gi de la sa ci lu jëm ci wàllum jënd ak njaayum gerte gi ak Sonacos gi nga xam ne ma ngi ci ay jafe-jafe loolee tax na Aliou Dia ci tournée boo xam ne doon na ko amal daat nay wax ne état bu Sénégal dafa fas yéene jël dogal ngir nag bloqué li nga xam ne mooy exportation yi ngir nag mën a dundal wala mën a protéger ñii nga xam ne ñooy waa Sonacos yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy ñu yóbbu ñu diwaanu Mali nañu Soumaïla Cissé mi nga xam ne fësoon na lool ca Mali ci lu jëm ci wàllum politique moom daat nay génn àdduna ca Paris la France woppi coronavirus moom la amee li am ci yéen kaay di Vox Populi mooy ñaari professeur sœur yi nga xam ne dañu leen a tuumal ci lu jëm ci wàllum viol wàllum yekkataan ci benn école bu nekk ca Wakaam ci benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom ñaar ñaari professeur yooyu yóbbu nañu leen ndungu siina maanaam yóbbu nañu leen rëbës ba tey ci biir yéen kaay gii di sunu làmb nee na ñi nga xam ne ñooy mbër yi te nekk en activité ñoom Gris Bordeaux tey jii danañu amal conférence de presse ngir xool seeni mbir ana nan la ñu koy lijjantee ba mën a bërewaat yéen kaay gii di stade nee na Edouard Mendy góolub Sénégal bii nga xam ne ma ngi Chelsea ma ngi toj Chelsea ndax lu toll ci fukk ak